suñu premier numéro développé woon nañ tuuti ci jimboor yi mi nga xamante ni def na roi des arènes ah yor tamit doole ji te élect euh, ji nu jëm muy le 24. daal di leen di waxtaan ak yéen aussi ci de mi nga xamante ni premier cas te mu gàddaay dem mënul fexe ba ñëw tey nag ñu fas développé suñu deuxième numéro ci Modou Xarañ Lo muy le deuxième cas. nga xamante ni moom jàpp nañ ko moom tamit ni ko ràpp ci kaso bi ni ko doo bokk ci làmb ci parce que bëgguma bëri ak yow question bi ñuy njëkk a posé mooy ndax moom Modou Lo du deuxième cas di occupé maire bi nga xamante ni nii mooy maire bi gën a mag ci Sénégal muy maire de la capitale moom ñu ni ko ràpp tëj ci kaso bi mënatul bokk ci làmb ji ndax loolu yoon la wala du yoon ndax teg nañ ko ci sart bu fekkee suñuy sart réew mu ngi dëgër ba léegi ndax dafa mel ni moom Jimbori yi fu mu xolloo suñu sart réew yi foofu la ñuy xool fu mu xolloo ñi nga xamante ne nii ñooy amateurs yi foofu la ñuy xool fu mu xolloo ancien gloire yi foofu la ñuy xool léegi nag dañuy laaj ndax Modou Lo la mu yore ba tax ñu jàpp ko yóbbu ko ci kaso bi ni ko fii ngay paasee say vacances fii nga war a tabaskee fii nga war a koritee fii la la làmb ji di fekk yow doo sëgg bëre waaye bu làmb ji paasee ba nga xamante ni man Jimbori roi des arènes yàlla def na ma nekkaat roi des arènes te du ma sëggaat bëre dinaa la mën a baal pour nga mën a bokk ci yeneen yeneen làmb ba tey damay laaj ndax ñun Sénégal ñun ñi nga xam ñooy ay amateur yor sunu licence su ma nee licence mooy suñu carte électeur ñun ñii dañoo war a toog rek di xaar xool politiciens yi ñoom ñuy xool li leen neex ñu di ko def li leen naqare ñu di ko bàyyi ma di leen laaj encore ndax Jimbori moom bu fekkonte ne ni def nañu ko nii mu def Modou Xarañ Lo mii ndax moom dina sëgg ci làmb ji bëre ba tey mu doon roi des arènes yaakaaruma ko may laaj aussi moom Modou Xarañ loo moom nga xamante ni dafa bokk ci écurie bu mag écurie boo xamante ni Sénégal musu dem élection te ñoom bokkuñu si ndax ñoom ñoo mës a jiite làmb ji waaye complice jimboor yi mooy ki nga xamante ni moo jiite écrit boobu te bëggul Modou Xarañ Lo bokk ci làmb ji léegi nag sénégalais yi lan moo naka nar a nekk seen rôle ndax dañoo war a toog ni duñu dagg ticket dem dugg seetaani làmb jooju ndax bu fekkente ne ni ñun ñii di sénégalais yi ma tuddee leen amateurs yi demuñu seetaani làmb ji yaakaar naa ne làmb ji du am xorom maanaam suñu demul voté yi élection du am lamb du mëna am fofu ndax loolu lan wara def waa wala déet damay laaj beneen bi si topp damay laaj ndax dañoo war a toog di wax suñu njaboot yi dem leen ngeen jëli seen carte bu jour ba jotee ngeen dem sànnil ki leen neex mais kan moo leen di neex ndax bu fekkente ni moom nga xamante ni roi des arènes dàq na ni ci bokk Modou xarañ loo mu jàpp ko ni ko ràpp ci kaso bi tëj ni ko ci bokk kenn moo fa nekk muy Siteu di u ñëpp xam nañ ki may wax ah moom am na mbooloo waaye yàlla dafa dogal dool tolloowul doole ak jimboor yi keneen ki fa nekk muy ancien gloire di maître M moom ku ne xam na ni tolloowul doole ak jimboor yi ndax ci benn gox rek la am doole keneen ki ci topp wala ñeneen ñaar ñi si topp mooy yaawu jaal ak gaynde ñooñu jimboor yi da leen a nar a napaaje rek tege leen nële kon ñun dafa mel ni demaguñ ci làmb ja waaye xam nañ kii daan ndax kii nar a daan mooy ki organiser làmb ji ut arbitre teg ut ku koy tànnal ay kartam teg ut ku koy tuusal teg ut ay supporter am teg ay supporter am dong ñoo am droit yuuxu ay supporter am ñoo am droit tëgg ba dugg ci biir jàkk di fa tëgg ay supporteram rek ñoo am droit wax fu leen neexee dox fu leen neexee ay supporteram rek ñoo am droit jël stade yi ak grand théâtre yi ak fépp foo xamante ni place publique la def fa lu leen neex léegi nag ñun sénégalais yi lan mooy suñu rôle damay ñëwaat encore une fois bu ñu sànnil kenn xeer bu ñu gàddul kenn jaasi bu ñu demal kenn ci mbedd mi ñu nuy dóor ay lacrymogène ñun suñu voix mooy suñu carte waaye nag boo góor góorgóorloo sensibiliser nit ñi ñu leen jëli leen seeni carte pour que bu jour baa ngeen dem ci mbañ gàtte xool mbër bi leen neex ngeen tànn ko ba pare nag ñun ñi jëli suñuy carte suñu mbër nga jël leen ñii nga sànni leen gàddaay ñu dem seen yoon ñii nga jël leen dóor ci kaso bi ni leen du ngeen fi bëree waa mais juróomi mbër yi nga tànn nga xamante ni matu puusuñu paasuñu juróomi mbër yooyu est-ce que ñun ñu jëli suñu carte suñu mbër ñu ngi ci li doon yoon yaakaar naa mooy ñu bàyyi ñun sénégalais yi ñun amateurs yi suñu mbër yi nga xamante ne nii dañoo bëgg a bokk ñu bokk ndax yaakaar naa ne bu fekkonte ni Modou Xarañ Lo mi nga xamante ni tey moom la ñuy waxtaanee muy le deuxième cas li ko dugal ci kaso bi bu fekkonte ni nii euh, ñaar ba ñetti maire yi ko jiitu loolu dugaloon na leen ci kaso bi kenn du ci am looy laam-laamee waaye képp kuy xelukat képp kuy xalaat képp koo xamante ne nii xam nga nu ñuy yoree réew xam nu ñuy yore maire yi xam nga ni dugal nañ ko ci kaso bi rek waaye teguñu ko ci yoon dañ koo jaay doole léegi nag sénégalais yi ñoom ñoo war a àtte nan la ni àttee laaj naa leen ko waaye bu kenn sànni xeer de bu kenn saaka de bu kenn yuuxu kenn nanu xool li nga xamante ni moo raisonnable rek ñu def ko jërë ngeen jëf